jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen te ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Sicap Mbao ñëw seet si suñu benn yaay waaye suñu benn mag di suñu benn xarit boo xamante ni moom tamit mën nañu wax ka ne sax dafay yëngu ci li nga xam ne moo di social ndax li muy def ci jaamu yàlla la bokk dafa yor këram goo xamante ni am na ñu si bëri ñoo xam ne dañu yor cancer nekk fi ñu si yor cancer nag mu ngi toll ci 26 personnes personnes waaye ñi si des dañu daal di wàññeeku ba mu toll si 22 personnes ñi nga xam ne dañu yor feebaru cancer loolu nag sabab fi suñu ay tànk ñu ñëw seet ko ñëw waxtaan ak moom ci kër gi naka lay doxee nit ñi naka la ñu fii ñëwee ndax am na ku ko jàppaleeg yooyu ci loolu la ñuy waxtaanee ginnaaw ba ñu ko nuyoo ziar ko bu baax a baax ñu bàyyi ko mu nuyoo waat ak mbokku internet yi nga xam ne ñoo safoo di seetaan site bi di wasaare soxna si maa ngi lay nuyu. waaw ngi lay fay bu baax. soxna Mbène waa wasaare maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waa waa Fatou Khoule waaw Fatou su ma juumul ñawoon nañu ci sa kër gi ñëwaat nañu fii tey nag di waxtaanee li nga xamante ni moo di kër gi nga xam ne taxawal nga ko te ñu nga xam ne dañu am li nga xam ne moo di feebaru cancer ñu daal di fi nekk ndax mën nga ñu wax naka la kër gi dooree naka la commencé ak yooyu. waaw kër gi moom ni mu dooree nekk hôpital Dantec man ak maladie cancer yi waa yàlla def may fajo cancer foofu ñoom tamit ñuy fajo cancer man nag am naa sama kër càmmiñ fii boo xam ne Sigambaaw la nekk te malade yi dañ doon jóge ci àll bi ñii di jóge Saalum ñii di jóge Ndar ñuy kuppantu dëkk bu nekk malade di fa jóge malade yi ku nekk xam na ne buñ la hôpitalisé doo fanaan ci biir hôpital bi te ci biti hôpital bi ngay fanaan parce que la bu guddi jotee visite yi dañ génne waaw mi ngi situation boobu nag ñu dund ko mu metti si laa ñëw waxtaan ak sama càmmeñ ne ko dama bëgg a ànd ak malade yi di ñëw di fanaan si kër gi mu ne ma waaw temps yooyu suñu xëyaanee ñaari taxi lañ daan def ndax radiothérapie lañ doon def heure waaw yàlla ñëw ak dogalam nag wax dëgg fa yàlla sama càmmiñ bi saal boobu mu ñu joxoon dem ba xat si ñun mu jëlal ñu appartement Sicap Mbao weer bu dee moom mooy dem fay borom appartement moom moo ñu doon dundal moo ñu doon def lépp mu di si jaamu yàlla moom tamit temps yooyu wax dëgg fa am maladie yóguñu woon dara ñooñu nag wax dëgg macha allah wér nañ ba ñibbi moom wax dëgg ñu ngi si jàmm ñu ngi woote téléphone ñu commencé sax di di di yëngu ci beneen affaire di liggéey ñoom ñëpp léegi nag bi ñuy commencé di def noonu yàlla ñëw ak dogalam sama càmmañ boobu feebaru cancer dugg ko moom tamit mu décédé léegi bi mu décédé nag man ma des ak maladie ci kër gi léegi nag jafe-jafe commencé na di ñëw nga bëgg a dundal maladie bëgg leen yóbbu hôpital bëgg a nekk seen traitement ñu maladie war a nekk passement ngay fay pour ñuy def passement waa mu métti te boobu xamuñu woon yoon bi fu ñu war a aw waaw mu métti lool nag bu ñu xëyee sol suñuy tiset dugg ci marché yi dem màjjaal pour ñu am lu ñu dundee ci loolu lañ jàpp di si dund di si dem hôpital ak lu nga xamante ne nii sama famille ñu ngi ma koy jàppalee. sama boroom kër man sax ci loolu rek ba yàlla def nag bu ñu génnaa génnaanee dem màjjal wax dëgg ñuy am yu takk yoo xam ne danañ ci mën a fay location kër gi danañ ci mën a dund ñu nekk noonu nag ba yàlla duñu boolante ak bon volonté yi comme ñu filmer vidéo rek comme ni bon volonté yi gis ko jàpp ci ko mel ne Fadel Dakar Buzz Pape ñaa ànd taxawuñu wére di ñoom tamit wax dëgg fa yàlla ñu taxaw ma bu baax nag taxaw ma bu baax a baax a baax su ma jaaxlee rek su ma leen woowee ñu ñoom tamit ah, loolu daal moom lañ nekkee si kër waa kër gi léegi mu am na 4 ans nag kër gi am na 4 ans waaw am na 4 ans. bi nga xamante ne sa càmmiñ bi mu ngi nekkoon fi nga xam ngi <laughs> tëj na bi nga xamee ne sa càmmiñ bi moom mu ngi fi kon yëgu leen woon location ak li nga xam ne moo di fay ndox ak li ñuy dundalee li nga xamante ni moo di malade yi ñoom loolu daan leen fekk maanaam daan ñu woon fay daal. déedéet boobu moom yëguñu woon dara wax dëgg fa yàlla boobu mosuma génn sax boobu internet xamuma sax boobu moom wax dëgg fa yàlla kenn xamuma heure ma xëyee maa ngi ci sama traitement maa ngi ci traitement maladie kenn xamuma woon maa ngi fi nekk ak sama rakk bu jigéen sama doom baay ak sama mag bu jigéen su fekkee man mënuma dem sax ñoom ñooy yóbbu maladie seen compagnante yi xam nga ci village yi la ñuy jógee du ñu miin bu baax noonu hôpital waa kay dañuy dem ba bu ñuy ñëw fii duñu xam ne cancer moo leen fi indi dañuy ñëw ak benn yére ak benn jikko bi xam nga tamit nit ki nga xam ne ba nga juddoo ba tey mosoo génn ci sa dëkk ci sa dëkk rek nga mën a nekk yàlla teg na la nattu nga génn munoo yem ak ñi nga xamante ne nii bu ñu juddoo ba léegi génnuñu si ci ville bi ñoo ci ville bi metti ñu nekk ak ñoom di naxante ak ñoom da nga gis koo xam ne sax su demee bañ jox ñu facture day wax moom day ñibbi ndax këram yépp su ko jaayee amul lu toll nii mu war a fajoo waaye dañuy ànd ak moom rek di jóg di daanu di lijjanti di taqale ba keroog muy faju ba dëgg fa am jamono yooyu moom mosuñu woon am dara loo xam ne mas dañ koo xalaat lu dul faju wér rek hmm, waaw. man malade cancer laa cancer sein laa ma jóge mbuur ñëw fi di traité wu man mii dëkkuma fi mbuur laa dëkk waa kay noonu nag ñuy toog di waxtaan xam nga rek cancer dafa yaatu nekk na feer boo xam ne natt bu metti la mais dafa yaatu mu yaatu ginnaaw parce que ku ci gis sa moroom rek danga ko ñeewantal pour toog waxtaan ak moom partager ak moom li nga dund ci ci feebar bi affaire yooyu waa noonu lañ nekk nag buñ toogee buntu hôpital daan teg wala ñu nekk ci biir comme ça euh, radiothérapie dañuy woote par par heure waa kay ñu toog ñu bokk heure ñooy xamante ñooy miinante dañuy bokk di kaf ku nekk di wax sa morom situation léeg-léeg nga bindal nit garab du ko mën a jënd ñun ci suñu biir ñooy kolo kolo affaire bi dem jënd ko ñëw indil par yenn saa yi sama yaay sama famille ni la jàppale leen am na sa malaat boo xam ne bindal nañ ko garab ñoom ñu amuñu famille amuñu doole ñooñu yónnee ñu si biir hôpital bi ma dem jënd ko ñëw jox jox malade bi waa noonu lañ nekkee woon wax dëgg fa yam yërmande rek moom lañ doxee foofu ak nattu bi nga dund ko. xam lan mooy cancer cancer bari alal lool boo néewee doole moom mooy loolu waa saa yàlla. na nañu xam exactement nombre bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir kër gi jamono yi. waaw pour l'instant nii kër gi deux moo fi nekk 23 moo nekkoon ci kër gi ci jamono yi nii maanaam ci weer yi rek la 23 mooy kër gi li fi jaar ëpp na loolu ndax association la association bi ngi am ñatt téeméeri malade ak fanweer ak juróom am nañ récépissé association am nañ yëpp mais xam nga doomu aadama boo jàngul tubaab rek mooy loolu man jànguma tubaab mënuma expliqué lu bare ci ci ci ci association lu dul ma tourné vidéo comme nii rek wala ma génn dem ma jàlli ak sama maladie mais su dul loolu moom lu bari mënuma koo eh, jànguma boo ma envoyé sax du ma xam <laughs> du ma xam lan ngay wax loolu moo si xaw a métti pour le l'instant nii 22 moo fi nekk mais 26 personnes la ñu woon mois bii dama décédélé ñetti malaat mais nag loolu dafa gën parce que ñooñu tamit wax dëgg fa bi ñuy ñëw tamit déclaré woon nañ ne ñii kenn mënatu leen woon faj. mais comme ñëwoon nañ ci sama loxo man da ci was lu àq àndandoo ko ak bonne volonté yi ñuy jóg di daanu pour bëgg nuñ mën a génnee ci feebar bi mais wax dëgg fa yàlla bi ñu fiy ñëw tamit xamoon nañ ne sa trop man mi mi ñëw ci sama loxo tamit xam naa ne ñii moom gunge leen du yomb mais nag comme amoon nañ yaakaar ba ñëw ñuy àndandoog ñoom rek lu ñu bindal rek ñu dem defi ko comme comme jaamu yàlla moom ci jaam yi rek nga ko mën a jaamoo waaw. kon daal kër gi maanaam dafa am ñoo xamante ne ni dañuy ñëw faju bu yàlla defee ñu amaat seen wér gu yaram dellu comme ñeneen ñëw. waa kër gi noonu la taxawee kër gi li fi jaar bari na de kër gi mën naa la wax est li fi jaar matul téeméeri nit ak juróom fukk association bi nag ñaar téeméeri nit la ak fanweer ak juróom mais ñi am famille Dakar am fu ñu dal ñooñu daluñu si kër gi maanaam association bi dana jàpp seen activité mais nekkul na ñoom ñu ngi ci kër gi waa ñoom daluñu fi mais ñi nga xam ne amuñu fu ñu dal comme ça amuñu mbokk dakaar wala mën nga fi xam nga rek jamono neexul Euh, susut jamono Covid bi da ngay am mbokk sax nga woo ko mu ne la man dëkkuma Dakar fekk ne mi ngi fi mais day ragal feebar bi même nii nii Covid bi jeex sax da ngay woo nit sax di ko wax sa malade sa famille ñëw na fi nangam ak nangam mu ne déedéet man pour man man dëkkatuma fi nekkatuma fekk mi ngi Dakar sax mais day foog ne feebar bi day wàllaate affaire yooyu moo tax ak fere feebar bi ni muy diisee te duñ bëgg tamit yàqonte ak fayin bi waa loolu mooy tax waaw. d'accord yan jafe-jafe moo ëpp yi nga xamante ni yaa ngi koy jànkonteel ci sa coté ak maladie. malaay sant yàlla sant yàlla am na jafe-jafe parce que wax dëgg fa yàlla am malade dañuy bëgg lu nga loo xamante ne nii dem hôpital foo toll chaque jour yaa ngi jël taxi aller retour aller retour métti na ak malade yi mais nag dama koy gërëmee yàlla ndax yàlla moo ñu teg natt boobu waaye am na lu si bari nag loo xam ne wax dëgg fa yàlla am bonne volonté yi dañ ciy jàpp di ma si dimbale di ci taxaw ba am na lu bari loo xam ne wax dëgg fa yàlla foo ma fekk dama daan génn lu bari bi ànd ak malade di màjjaali mais léegi sax rarement. moom lay génn pour di dem di màjjaali parce que bonne volonté am na si ñu nga xam ne wax dëgg fa am nañ suñu yërmande yërmande boo xam ne xaaruñu ma sax ma woo leen téléphone suñu gisee rek dañuy wax faatu nangam ak nangam lii war na si maladie war na si si si association bi télé bii ngay gis nii waa Malikia TV ñoom ñoo ko jox maladie boobu ba léegi ñoom tamit ay jàmbaar lañ ku mel ne comme Adja Safi Diagne moom tamit wax dëgg fa yàllam man sax mën naa wax ne kooku mooy yaayu maladie parce que moom moo yore kër kër maladie waa lu ëpp programme am moom moo koy def jaa faatu faatu moom lekk cere sax daf koy tayee si àll bi pour la maladie maladie maladie dund nekku fi mais famille moom tamit fu ñu toll ñoo ngi jéem di xool xool ban situation la maladie nekk pour ñu man see see jàpp lu mel ne Adja Oumy Adja Oumy Diouf moom presque Diouf moom mën naa day def appel vidéo ak maladie maladie yëpp ko xam maladie bi suñ ko déggul sax dañuy wax doo ñu dimbale pour nan lañ ko mën a déggee bu leen dara méttee sax ku mel ne comme Àllarba Kayta Abdoulaye Kayta dañ doon force pour dégganteeg ak sëfi dañuy force pour nan lañ mën a dégganteeg Adja Oumy wala ñu déggante ak Faatu wala ñu déggante ak Adja Sëfi wax dëgg fa Adja Sëfi Diagne moom seexluwuñ ñu daal chaque jour ñu ngi ñëw si ñun. di toogandoo di kafandoo di defandoo yëpp wax dëgg fa yàlla lu ñu metti woon daal ah yàlla mu ñuy jéem di jàppale tuuti muy oyof waaye nag bu ñu wax ne lépp cent pour cent la parce que wax dëgg fa ay malaat bu ñu demee ba bu ñu crisé bu ñu jàppoowul dem si tali bi du ñu am oto bu leen génnee fii kon am na situation loo xam ne des na lu baree bari mais nag dañuy ñaan ci yàlla mi nga xam ne moom moo ñu teg natt bi moom mu teggi ko si nu mu gën a gaawee ndax ci côté li nga xamante ne ni moom moo di malade yi comme ni ñi nga xam ne ñoom lañ fi ñëwee ndax ay jigéen kese ñoom ñoo fiy ñëw wala association bi ay jigéen ak góor ñëpp ñooy dëkk ci biir kër gi. jigéen ak góor yëpp ñooy ñooy dëkk si waa jigéen ak góor ñooy dëkk si biir kër gi moo tax ñu appartement bi bii jigéen yi ñoom ñoo nekk côté bi léegi côté bi dañ fa am benn néeg bu mag boo xamante ne ni boobu pour malade yu góor yi ñoom ñoo nekk ci côté boobu nii nag may waxanteeg yow ni malade yooyu dañu am rendez-vous dem nañ seen rendez-vous bu delsee rek la ñuy ñëw maanaam fii ku am rendez-vous weer sax doo fi toog waa soo amee rendez-vous weer sax da ngay delluwaat ci sa famille waaw bu buñ gisee malade ci internet bi gisaat ko rek dafa fekk ne kooku di def traitement somio comme ça boo filmé tey nga ñëw fekkaat ko fekk ne traitement somio la nekk somio bi dafa gudd te mënoo baagante di dem di ñëw wala ñi nga xam ne dañuy dindi seen tànk seen cër yi comme ñu dugg ci oto yi di ñëw te fi ñu dëggee dafa sori ci àll bi lool mooy tax ñu leen di téye pour ñoom ñu toog ba eggale seen traitement waa soog a dellu nag kenn ki sax wax dëgg fa yàlla dellu na seen dëkk bu am na rendez-vous trois mois defal ko programme ñu dem màjjal jëndal ko lu muy liggéey yëpp pour bu demee man si jàpp mën a liggéey mais mu dem rek tànk bi commencé waat am donju si la ko waa hôpital Kaffrine boobu dëppaat mu ñëwaat mu ñëwaat Dakar mi si kër gi. waaw mais sant yàlla bu baax macha allah. ankay yooyu moom day am moom mais nag dañuy <laughs> sant yàlla rek dañuy sant yàlla ndax àdduna moom képp ku yàlla bëgg a dimbali rek bu lay liggéeyloo ku yàlla bëggul dimbali du la liggéeyloo ñu jàpp ne bon volonté yi wax dëgg fa am du seen yaa foos buñ sañoon duñu am benn problème mais yàlla mooy dox ay weer yoo xam ne affaire yi day xaw a dëgër waa dañ koy sante yàlla rek bés bu ko yàlla jeexalee rek mu jeex si nu mu gën a gaawee loolu rek lañ jàpp ne noonu lay. saa ñaata weer ngay toog doo fay li nga xamante ni moo di appartement bi. yéen xam nga sax comme ça weer bi tardé rek location bi tardé mu mu retard du ñu mën a lijjanti pour fay ko mais dañuy woo boroom waxtaan ak moom ndax doomu aadama bu nekk doomu aadama waa su yàlla ñëwee ak xéewalam ñu dem fayu ko noonu lañ nekkee waaw. mais maladie moom fayuñu mais dangay yenn saa dangay maajal ak bol valantin yi nga xam ne ñoom ñoo ciy jàpp nga doog a fay. waaw maladie moom fayuñu fii maladie bu ñuy ñëw duñu indi dara fukki dërëm duñu ko indi. maa ngay gis léegi maire bii nga jàkkaar loolu hôpital la jóge léegi moom moo njëkk ñëw ci maladie maa ngi koy wax sax lu tax xaarantewu leen parce que su ngeen xaarantewul taxi tax yi day metti taxi bi ko indi léegi mille laa ko fay mu jëlee ko dalal jàmm indi ko suñu ñëwee buñ ma fa fekkul sax am na koo xam ne moom mooy yor loolu bu ñëwee day day fay day fay man yi leen indi ñu delluwaat waaw moom laa doon waxanteeg moom léegi mu ñëw ak ay ordonnance am mooy loolu mais nag dañuy sant rek xam ne yàlla baax na daal xëy na yàlla mi ñu teg lii mën nañu génne ci benn situation mais maladie moom wax dëgg fa yàlla gisuma malaat ñëw fi indi dara wala sa famille ñëw fekk sa la fi parce que man moom su bërki démb rek am na benn femme bu ma woosi sama malaat dafa nekk ci kër gi ma bëggoon laa envoyé ci sa portable ñaari junni nga jàpp ci malaat bi dama ko ne envoyé ko ci numéro malaat bi ndax malaat bi dana am lu muy bëgg te duma fi fekk boo ko envoyé ñaari junni yooyu dana ci mën a def ay bëgg-bëggam yu sew ba keroog muy jeex waaye ba ma ko envoyé ëllëg laay bañ ñu ne dañuy envoyé woon ci numéro faatu lañ envoyé woon lépp nag loo xam ne Fatou tourné ko ànd ko ak malaatami vidéo def numéro bon volonté jàppale ko loolu alalu malade yi la ak Fatou malade yi dañ ciy dund. dañ ci fay location dañ ci lekk dañ ci dem hôpital ku gis kër gi xam ne dund kër gi du dund bu ndaw kër gi lu weex tàll la ñuy dundee mais nag pour en tant que malade bu nga xamante ne nii famille am ñoo ko bëgg a jox ne woo ma téléphone dañ koy dugal sa téléphone ba naan nañ ko envoyé sa numéro malade bi ndax damay bañ bu ëllëgee muy indi ay détails yoo xam ne du ma gënal du gënal ñi nga xam ne chaque jour dañuy kontaan ci sama liggéey lool moo tax du ma nangu tijjal xaalisu malade léeg-léeg da nga ciy gis malade day décédé sax nga dem ci ci ci ay mbokkam ñu ne la ñun de weer bu dee dañ daan envoyé di ko jàppale ma ne man loolu yoguma ko duma ko gis parce que man li ma leen wax dafa leer ku nga xam ne dafa ma woo téléphone mu ne damaa bëgg laa jàppale ndax sama malaat bi mi ngi ci yow ma bëgg laa dimbale pour malaat bi faju wax ma ñaata lay fajoo ma répété la nga jël sa wërsëg jàpp ci amul problème parce que yow yaa jàpp ci loolu mais en tant que sama malade bi mu ngi foofu ci yow waa man mbokkam laa damaa bëgg def nangam ak nangam ak nangam déedéet parce que bu ëllëgee ay détails moom laay bañ dañ ko doon envoyé ci numéro Fatou faatu mi ngi ak sama sama xaalis wala dara man du ma du ma dundee noonu daal te lu muy dund 4 ans te amu ci gàcce du xaar ba heure bii mu di ci bëgg gàcce moo tax bëgguma ko. d'accord ñu loo xamante ni Sénégal yëpp dund ndax nguur gi wala ñi nga xamante ni moo di responsable politique yi am na kenn koo xamante ni mos na fi ñëw wala mu contacter la ngir jàppale la ci li nga xam ne moo di dund malade yi wala fay location bi. waaw bu ñu waxee dëgg moom a dëgg fa yàlla nguur moom ñëwul fii xanaa ministre de la santé. waaw macha allah jàmbaar la si man parce que léeg-léeg ma am ay programme contacter leen waa ñu taxaw si ku mel ne waa Liska. waa waa LISCA am na ay quelques malades nekk ci kër yoo xam ne am nañ dossier LISCA day taxaw ci malade yooyu wax dëgg fa yàlla waaw bu ma leen yóbbulee seen dossier dañ ciy taxaw mais xam nga suñu mbokk yi nekk ci àll bi fonk ñu carte d'identité xaaju li ma gën a sonal lool si la bokk bu fekkoon fonk nañ pièce kon duñu sonn ba mel nii mais fonk ñu pièce te LISCA du jàppale malade boo xam ne amul pièce te loolu tamit dëgg la parce que xamuñu bu ëllëgee circuit bi fan lañ koy toppee parce que indiloo ñu benn pièce buñ mën a wane ne yow fii nga bokk xamuñu ndax sénégalais nga xamuñu ndax doo sénégalais ku mel ne comme tan jaar Guèye Kébé tamit cancer du sein moom tamit taxawaay boobu am si man damay photo rek envoyé ko rek benn dossier malaat boo xam ne am na pièce mu ne ma faatu ma ne am ah, mu ne ma bu subaa demal nga defe ko bërëb sàngam wax dëgg fa yàlla ñoom tamit bi ñu jàppee ci bu ñu jotee sama affaire dañ ciy jàpp dañuy jàpp bu baax mais nag dafa am malade yu bari yoo xam ne maanaam am PS ñoo bariwul presque quatre malade rek ñoo dekk kër gi yoo xam ne am nañ carte d'identité yëpp amuñu amu amuñu PS seen som yoo da nga koy dem di jëndi nga fay metti mais da nga koy jëndi. Fatou gannaaw ba ñu déggee sa wax sànq dégg naa ci say biire waxtaan nga ne même feebar bi nga xamante ni malaat yi ñoom la ñu yor yow moom ngay euh, dundaalee ndax yomb na ci yow ngay gere sa côté ak côté li nga xamante ni moo di malade yi aussi. waaw affaire bi ngëm-ngëm la rek man moom wax dëgg fa yàlla am pour man cancer ak sibbiru ñoo yem ak feebar yëpp ñoo yem man moom sama association bokk na ci association yi contre malaatu cancer bu ñëw ci hôpital sax tëdd di las la si ñu lay yëkkati ak di la tëral di la yërëm parce que wax dëgg fa am doomu aadama bu nekk war nga bañ ay ndeysaan nit ko ay ay ndeysaan ñàkk mais nit ki nga bañal ko sa bopp tuuti man bëgguma foo tollu rek yaa ngi gof gofe ci maladie dama feebar dama di tifli di wàccu di def yenn affaire man sama kër fii sax amul pot boo xam ne dañ ko teg pour maladie di wàccaw ko parce que bëgguma ko waa kay man moom wax dëgg noonu laa dundee feebar bi noonu laa ko dundalee sama maladie damay bëgg ñu sangu ba set sañse toog partager waxtaan suñu amee douleur ñu dund douleur bi bu douleur bi jeexee ñu nekk ci leneen kaf ree dàq bëre boo ñu fekkee fii amuñu dëllër amul dara danga daan ñi ay zéekatu théâtre la dañuy nekk ci kër gi an bu ñu amee malade yu sonn daal jaxasoo daal la kër gi mën a dal nga xam ne ñoom ñi am nañ ñu sonn mais bu yàlla defee ñoo ñu génn ci situation boobu kër gi day delluwaat comme ni mu nekkoon dañuy kaf dañuy ree dañuy dàqe dañuy bëre 4 heures di matin la maladie di yeewu ku nekk moom ngay yeewu dem sangu jàpp julli yor sa kurus di wér di ñaan ci yàlla ndax dañuy yaakaar ne yàlla rek moom moo fi nekk waaw traitement yi ñii chaque semaine la ñuy dem ñii chaque vingt deux jours ñii chaque vingt et jours am na quinze jours mais semaine semaine yi daal moo fi ëpp waaw semaine semaine yi moo fi ëpp waaw Fatou gannaaw ba ñu waxee ci li nga xamante ne ni moo di ci kër gi daal mel ni ñëwoon nañu fii ci ginnaaw ki nga xamante ne ni moom moo di Ablaye moom tamit ñu jëloon ko émission fan yi ñu daal di dégg ne moom daal nay wàññeeku gannaaw ba ñu la ko jaalee nga ñëwalal ñu tuuti sa diggante ki nga xamante ni moo di Ablaye mi nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyeekoo te moom aussi mu nekkoon ci li nga xam ne moo di ci kër gi. waaw ah, Ablaye Keita maa ngi koy jën koy jaale bu baax ndax wax dëgg fa yàlla yéen yéen a ma njëkk a jël ci Ablaye Keita Pape Niang moo ko njëkk a filmé après Pape Niang si laa leen contacté ngeen ñëw filmé ma Ablaye Keita Ablaye Keita moom moom tamit amul woon pièce moo tax affaire am metti waaw Ablaye Keita nekkoon nit ku baax. nit ku bari yërmande nit ku ku mu bëgg Ablaye Keita moo ko rakkam ñoo fi nekkoon looloon àllarba Keita ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar fukki fan ak benn lañ lañ rawante ci suuf ñu nekkoon famille boo xam ne ay albinos lañ seen yaay am na si juróom-ñaari doom yoo xam ne ay albinos lañ mais wax dëgg fa yàlla ñu nekk famille bu baax ay nit ñu nga xam ne danga naan sax yàlla moom moom mën a teg nattu bii ay jaamam mais nit ñu baax ñu dal ñu am yërmande ñu ma yërëm nag. mu nekkoon malaat bi nga xam ne salle bi yow yaa ma fi dugal tey parce que ñoom fii lañ nekkoon ñoom ñoo nekkoon ci matelas bi su dul loolu man duma dugg fii ndax sama yaram sax bu ma fi du rombee rek sama sama xol dem na si ñoom ndax nekk bu rafet bu ma nekkee woon ak ñaari jëmm yooyu ak seen yaay ak jabaru Ablaye dëgg fa yàlla maa ngi woon ak ñoom si taraanga Ablaye su may xoolee sax day téye sama loxo faatu yàlla la yàlla fay yàlla la yàlla defal jàmm si taxawaay bu rafet bi nga ma taxaw àllarba kayte dem na bu nga xam ne mu ngi si sukuraat su ma ko rombee bët bi la may toppee man maay siggi ma ne ko àllarba lan la yow àllarba loo may toppee fu ma aw rek nga topp ma boobu mënatu la wax day windeel bopp bi rek daal di nopp ma dem ba médecin yi ñu ne faatu kii bëtam mu ngi lay xool bëtu bëgg bëgg la rek faatu ma ne man maa am lu ma naqari na xam naa ne àllarba nii mu ma def baaxul ku jég ku daan wax nga xam ne daanaka àll moo doon animé kër gi mu tëj gémmiñam waxatul ñetti fan li ma gis nii de neexuma waaye ah dama koy àndee ak yàlla suñu borom ba keroog ma waa Alfala di génne xam naa ne ñu ngi may génne waaye génne yóbbuwuma nit waaye nag damay sant yàlla comme yàlla moo ñëw ak dogalam noonu ma nekk ak moom ba ci fajaru àllarba bi yàlla ñëw ak dogalam ma ñëw ak Ablaye Keita comme noonu Ablaye Keita nag bonne volonté jàppoon nañ ci moom. wax fa yàlla mi ma doon jàppale ci moom bu baax a baax a baax wallaay woon dara heure bu ñu waree dem hôpital day dem hôpital muy guddi muy bëccëg heure bu ñu waree dem hôpital day dem hôpital Ablaye Kay ci hôpital tamit dëgg ñu fay fekk ñun ñu nga xam ne dañ ko bëggoon waa su ñëwee dañuy nekk si moom di ko toppatoo di dal ku mel ne comme dalal jàmm ci kaw kanzalu dalal jàmm madame Fall ñu ñu fa fekk wax dëgg fa yàlla docteur yi ñu fa fekk bëgg ñu di toppatoo malade dañ ci daw a daw daw a daw mais nag yàlla bu soxlaa jaamam ñàkk loolu la waaye wax dëgg fa yàlla fay boobu moom. maa ngi leen di ñaanal rek Ablaye Keita àllarba Keita yàlla yàlla yërëm leen jéggal leen seeni i bàkkaar. ñaar ndax mën nañ xam fan la ñu daal di ñàkkee seen bakkan ci kër gi wala ci hôpital bi. déedéet Abdoulaye Keita hôpital la la noppali waaw mais Alarba Keita damaa nekk ak moom dalal jàmm am nañ fa 10 jours dama nekk ak moom alfalaa am nañ fa 10 jours moo ma amee alfalaa 10 jours ma xëy mardi waa ñoom ñu ne ma génn leen man ngeen a ñibbi mais boobu tamit ñoom xam nañ ne c'est trop tard waa ñu ne ma woon problème mu sang la amul may den tee ma ko fee bàyyi kon dem wëri sang àllar ba kay te sang am dafa naqaree am ñu ne ma déedéet faat demal rek bu amee ñun danañ la woo waaw boobu xam nañ la xew bu amee danañ la woo pour nga ñëw jël jël si sang man tamit ma ne waaw ma génn ak moom ñëw ci kër gi bi ma ñëwee ma ne comme àllarba dafa jaxasoo man maay fanaan ak moom àllarba man ak moom ñoo fanaan ak yaayam man ak moom ak yaayam ñoo fanaan si néeg ñu nekk ñuy bës di jëndi supp di ko sexal ñeex bi mais luñ ko sexal ndox bi mu génnaat luñ ko sexal mu génnaat mais man boobu ba tey rek maa ngi jàpp ne sam yoo bi mu def rek daana ko yëngal yëngal bu mel noonu moom moo ko yëngal. yeneen maladie ñëw ñu ne ma faatu ah alarba mi lii baax alarba baaxul de doo woote pour nga daw demaat ak moom hôpital ma woo leen ñu ne ma déedéet faatu faj suba ci suba gi nga indi alarba toogal ba suba ci suba gi nga indi ko ñu xool ndax danañ am saamam déet man leen waa si fajar gi daal alarba ci fajar rek yàlla ñëw ak dogalam fekk na sama dëgg fa daf ñu nax man ak yaayam yëpp yaayam mi ngi tëdd ci wetam mais àllarba deful benn bruit man maa ngi tëdd àllarba deful benn bruit yaayam moo jekki jékki rek mu dóor sama tànk bi mu ne faat faatu ma ah, ne ah doo xool sa mbokk mi faat sa mbokk bi de dem na bu yàgg. ba si laa yuuxu nag ma laa di wër ma di faatu bul def lii bul def lii lii baaxul lii baaxul ma ne lu may def ay man lu ma def yàlla ni ma yaakaaree woon alal ba wér yaakaar bu ma am si moom hôpital buñ ma wax rek daw naa dem ndax yaakaar wér si la waa koñ bi nag ñëw ni ma déedéet déedéet li nga man yëpp def nga ko yàlla moo ñëw ak dogalam mais alal moom wax dëgg fa yàlla dafa sonnoon dafa sonnoon torop góom bi sonaloon na ko metti woon na amatul woon benn jàmm mais bu amul douleur alal ba moo gën si kër gi du nangu sax toog dama koy aaye ba bàyyi liggéey bi mu ne déedéet man damaa bëgg lu set presque maladie fii alarba mooy njëkk a sangu mooy njëkk toog du julli fajar lay lay yeew sangu jàpp julli ñëw toog du wéet boo ko waxee mun a faat maa ngi ñaan rek yàlla dana indi xéewal de bi lay faatu yàlla dana la defal jàmm soo fekkee man ak alarba comme nit ak. moroomam dañuy bëree si kër gi dañuy fo dañuy def yëpp damay tëdd sax di nelaw mu ñëw yee ma fii moom doo fi nelawee yow da ngaa bëgg lu yomb wax dëgg fa yàlla mu nekk nit ku ma manqué nag waaye nag yàlla moom ba soxlaa jaamam ñaar waaw. feebar bi daf ko tëralaata moom ndax Ablaye cancer foie l'heure xam nga ab lay yàgg naa feebar te fajuwul. Ablaye feer bi yàgg na si moom te fajwul Ablaye daanaka si man la commencé traitement waa man maa ko yóbbu hôpital fekk mu demoon hôpital Youssou ñoo ñu génnee cancer bi yebal ko ne ko la dem dalal jàmm mais Ablaye demul woon ndax problème mu ma ween waa kay ci man mii la commencé def traitement si man la commencé fajoo si man sax la xamee ne dafa cancer nag waa si man la ko xamee bi ma ko yóbbu hôpital waa ki nga xamante ni moo di maladie ku ci mel ni ki nga xam ne moo di Abdoulaye Keita ak euh, Alarba Keita mi nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeekoo bu yàggul ndax ñoom tamit képp koo xamante ni ñëw nga ci kër gi ba daal di fiy wàññeekoo doo am problème boo xam ne dina la yóbbuwaat ba sa dëkk ngir ñu mën la denc foofu wala. yàlla dogal na nag wax dëgg faa fii moom bu malade bu décédé amee danaa la fexe ba tourner vidéo ku mel ne comme Pam ñaar dina ñëw dugal vidéo pour bonne volonté yi jàpp waa kay ñu yóbbu mais avant loolu day fekk ne am na ay bon volonté yu nga xam ne suñu yëgee décès bi rek dañ may envoyé ne faat demal nga yóbbu ju koor bi wax dëgg fa yàlla dañ ñuy envoyé toppatoo ñu bu malade bi taxawaalu demal nga yóbbu ko parce que comme nekk ah, doon nga ci wastu àq ba yàlla ñëw dogalam nañ ko yóbbu ci village am village yi nag dañuy sori waaye dinañ soox ak suñu feebar ba delloo ji leen saafanteeg seeni bokk ñaanalanteeg ñoom soog a dellusiwaat nii may wax ak yow nii sa dëkk ñoom àllarba maa ngi fa commencé. benn douche boo xam ne man maa koy tabaxal ñoom ndax dañuy nekk famille bu néew doole amuñu benn doole amuñu toilette foofu amuñu ndox yàlla dogal ne démb lañ ma woone ma ndox bi ñëw na parce que man maa ko bàyyi woon foofu ne lañ dem fay pour ñu mën a am ndox waa ñuy tàllalaat bonne volonté yi ci côté boobu moom loxo Ablaye Keita yaayam juróom-ñaari puune la am ñoom ñëpp décédé nañ. ba juróom-ñaari yëpp juróom-ñaari des na foofu ñaar. ñaar yu góor la des foofu ku nekk xam ne ne Pouné mënul liggéey liggéeyu naaj mënuñu liggéey ci naaj loolu mooy gën a sax di leen forcer cancer bi seen doole demeewul noonu su tawee néegu yaayam bi dana sotti ndox bu nga xam ne daal moom mooy loolu te wax dëgg fa yàlla ñu di tàllalaat leen loxo ñu jàpp lañu ci côté boobu pour ñoom ñooñu maire bi bañ a nekk di di souffrir njabootam lu ñu mën nag wax dëgg fa yàlla ci vidéo bi ñu leen tourné loon bi mu desee loolu laa njëkk a profité pour defaral leen douche pour defar leen ndox pour ndox mi ñëw waaye yàlla dogal na vidéo yi jeex na ndax lool laa leen tourné loon loolu moo ci desoon bi seen traitement man yàlla dogal na bu ma tourné les malades vidéo desee rek day demaat ci famille bi waaye du nekk loo xam ne day day toogaat ci sama loxo xëy na mën naa koo yoree malade sax dundalee leen ko mais dana ci am yenn malade yoo xam ne bu ñu décédee situation bi ngay fekkee seen famille moo tax doo mën a téye ko yoree malade mais fii moom ku fi téyee xaalisu malade def ko ci keneen tamit yàqoo ko parce que ci malade la jëm mais situation yooyu ni ma leen fekkee seen dëkk ñu ànd ma àndandoog ñoom ci seen traitement ba ñu egg fii sama ngor mayatuma woon lu dul ma taxawal leen fa seen yaay mag la mu am duus bu muy suturaloo ñu defaral ko néegam bi mu am ndox yàlla dogal na nag am na duus léegi am na ndox waaye néeg bi daal moom moo ñu dese kër gi daal moom moo ñu dese. lan moo la gën a marqué tey ci ñaar ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fi daal di bàyyeekoo muy Alarba Keita ak Abdoulaye Keita. lu ma gën a marqué ci ñoom ñaar. bari na lu ma si gën a marqué mooy ñàkku doole lool Abdoulaye Keita bàyyi ñaari doomi jigéen àllarba bàyyi góor ak jigéen seen njaboot may déggante ak ñoom ma xam ne àllarba palaatu banaanam boobu mu yoroon te ci liggéey moom la doon suturloo pour njabootam mën a dund Abdoulaye Keita këriñam gi mu takk di ko jaay moom la doon suturloo pour njabootam mën a dund mu dem bàyyee ñaari doom jabaram àllarba bàyyee ñaari doom yaayam mu nekk lu nga xamante ne nii lu ma metti la tey seen génn àdduna soreewul. seen génn àdduna soreewul loolu gën na ma marqué. ñaari nit yoo xam ne bokk ndey ak baay rawante fukki fan ak ñett fukki fan ak benn dafa metti ci xol man foogoon naa ne wallaay man bi ma jugee si si dese Abdoulaye Keita sax nit ñi dañ ma doon téye di ma wax lii boo ko naree def day du baax kër gi fii pour ma toog fi sax problème la parce que affaire bi nekkoon na ci sama xol trop trop trop wax dëgg fa yàlla waaw xëy yàgg naa. décédé maladie ndox ku mel ne comme faatu Niang ku nekk xam na ne moom moo yoroon sax sama programme fii ci kër gi moom moo njëkk a décédé ci ñoom ci weer bi commencement weer bi la première la Fatou Niang génn àdduna te ñëpp xam nañ ne kooku sama seex la woon émission sax su ma koy def man ak moom ñooy ànd ñu am yaakaar mu wér ba ñu dem wute lépp xaalis pour financer ko pour mu dem jaay dëkk bi mu yóbbu woon bagaasam yi di ko jaay foofu lañ ñu contacté ne dafa feebar ma ne leen feebar faatu ñaata ne na wéer nañ ñu ne ma dafa feebar de loxo bi mënu si dara may leen nañ ma ko indil jour boobu lañ ko jëlee Casamance fekk jënd na ay dara ay dàll dem di ko jaay may leen indi leen ko bi ñu ñëwee ñu daw dem dalal jàmm ñu hôpitalisé man ak moom dalal jàmm ba yàlla ñëw ak dogalam mu génn àdduna bagaasam yi mu ngi fii si biir ndax waa waa dëkk bi ñoom ñoo ma delloowaat bagage yi nga xam ne daf ko faa bàyyi woon pour ñoom ñu leble ko ñu delloo ma ko ne ma comme mën nañ koo leble nit ñu duñ leen fay affaire yooyu mu nekk affaire bu métti mais nag dañuy sant yàlla rek xam ne yàlla moom bu soxlaa jàmmam ñàkk waaw waaw. d'accord Fatou képp koo xamante ni bëgg na jàpp ci kër gi ci dund euh, ñi nga xam ne moo di malade yi naka lay def wala fan lay jaar. waaw ku bëgg a jàpp ci dund malade yi ma euh, kër gi Sicap Mbao la nekk sikambaaw Mbao la ñu nekk ci golo yaa Mbao waa numéro maladie 78 la 147 62 35 waaw moo nekk sama numéro 78 147 62 35 waaw. kàddu gu lu may tàggoo xanaa bonne volonté yi ñu bàyyi ñu xel rek xam ne ñu fi nekk ay jigéen lañ ay yaay lañ ay mag lañ ay rakk lañ ay maam lañ te bu ñu sañoon kenn ku nekk wér ba dellu ci sa njaboot ñu leen di tàllaat loxo pour ñu taxawuñu bu baax rek jàpp ci bu baax rek waa loolu daal ñu ngi leen koy tàllal loxo di leen ko dagaan waaw ok yaa koy jërëjëf jërëjëf mbokk internet yi doon safoo di seetaan site bii di wasaare comme ni lañ leen ko waxee tey ñu ñëw seet woon ki nga xamante ni moo di faatu comme ni ma ko waxee bu may présenté rek mu nekk jigéen ju mën góor jigéen ju jàmbaare jigéen boo xamante ne ni jot na ngir askan bi wala sax nguur gi jug ngir jàppale ko ndax tey li nguur gi waroon uh, def moom moom moo koy def ci seen place kon jot na ñu jàppale ki nga xamante ne ni moo di Fatou waaye laataaloo lu ñu jaaree ko ki nga xam ne moo di Abdoulaye Keita mi nga xamante ni ñëwoon nañu fi tourné émission ak moom yàlla yërëm ko xare ko aljanna ak magam boobu nga xamante ni ñoom ñaar daa du soree dara lan leen yàlla yërëm xare leen aljanna firdawsi fa ñu jëm gënal leen fi nga xamante ni fii la jóge ñuy woo ñëpp nag ñu ñëw jàppale ki nga xamante ni moo di faatu ndax yor 22 malades yoo xamante ni ñëpp dañu yor li nga xamante ni moo di cancer loolu day xaw a metti ci dund ci traitement ci li nga xamante ni moo di fay location kon nañu ko jàppale joxe xamante ni moo di euh, vidéo bi di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah di jaajëfal xalil sama doom sama caméraman euh, di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf